monsieur le ministre monsieur le maire tey la tàmbali benn programme boo xam ne COJER Dakar boo koy def moo tudd un jeune un comité parce que parti bi loolu la wax dafa ne dam leen ngeen monter ay comité monsieur le ministre programme bi xaw a parce que il était question de fair des visites yenn kilifa yi nekk ci commune bi mais compte tenu du contexte te ñu ngi door a tàmbali dañu am yéene monte au moins six comités tey biscuiterie tey liggéey baa ngi neen di continuer normalement dañu waroon daay ba comité yi jeex ñu door a pare discours yi mais bëgguñu fi retenir nit ñi mais bu ngeen seetloo bu baax a baax a baax monsieur le ministre monsieur le maire ñu bëri ñu toog fii du ñu ay nit yuy ñëw di def ñëw politique wala di dem ay siège c'est juste des personnes yoo xam ne ñu ngi dëkk dans nos localités dans ñu sollicité leen parce que xam nañ ne président Macky Sall la ñu àndal ñu accepté ñu jox seen pièce d'identité pour ñu aarool leen bokk ci ay comité loolu mooy waral ne ay nit la yoo xam ne dañu pare ëllëg bu fekkente ne dañuy voté président Macky Sall ñoom ñu taxaw pour voter c' est pas des militants politiques mais c' est des sympathisants c' est yoo xam ne su lesquels on peut compter à la prochaine élection présidentielle loolu la ñu nekk def nii présentement mais jotaay bi tam dafa lu muy symboliser mooy ñun jeunesse biscuiterie yi Maguette Diop defe naa wax na ko dans son la ñu mënoon def yaa dix ans ci ay dons de fournitures scolaires ci ay forum tey lañ ko gën a mën parce que tey woote nañu nit ñi ñëw en l'espace de trois jours parce que lii jeudi lañ ko tàmbali jeudi la ñu tàmbali enrôlement bi tey ci suba la ñu liggéey organisation bi parce que ñëpp xam nañ ne monter comité dafa metti dem jëli carte d'identité ñëw photocopier convaincre nit ñi loolu nekkul woon problème si ñun pendant deux ou trois jours tey ci suba li ngeen fi gis comme organisation suba la fi kon maanaam on s'est concentré pendant trois jours pour l'enrôlement pour les comités monsieur le ministre boo fi teewee mënuma bañ a gërëm sant les femme de biscuiterie yi toog suñu ay yaay lañu te du duñu jóg ci duñu ñaax pour ñu gën a taxawal parti bi ci biir commune bi kon loolu bu amee tey sant ak gërëm ñeel na leen ñu ngi leen di remercier bu baax a baax baax si seen taxawaay merci beaucoup pour votre mobilisation ñëw bi ngeen wuy si mais dañuy remercier aussi particulièrement toutes les personnes yi nga xam ne nangu nañu suñu cause mooy maanaam nangoo joxe seen pièce d'identité pour ñu enrôler leen ci comité yi loolu tamit c'est important loolu bu amee dafay wane ne carrément que dans la commune nit ñi peut-être ànd nañu encore ak président Macky Sall te c'est important aussi de le noter mais dafa am aussi lu am solo te foog ñu wax ko monsieur le ministre Abdou Karim Fofana daf ñu recevoir bureau il y a de cela une semaine c'était lundi dernier on que le message mu dajale ñu waxtaan ak ñun waxtaanu biir néeg waaye yàlla xam na ne bi ñu génnee ci bureau ba ñun ñëpp ñu ànd jël ascenseur bi di wàcc pour ñibbi vingt heures ku ci nekk ci ñun la mu ñu wax daf la gën a ñaax gën la motiver ci li ñu jëm non c'est important li may wax xam nga am na loo xam ne kenn mënu ko wax ci mbooloo waaye dafa tëjoog ay rakam wax ak ñun waxtaanu dëgg parce que dëkk bi léegi dëgg dafi sooxe dëgg dafa sooxe ci réew mi koo wax mu ne le président mi ngi Sall mi ngi liggéey waaye waaye bi li ko indi yëpp mooy ay soskat ay fenkat ay ñeg ñi dul wax dëgg léegi nag dëkk bi dañu mënul nangu mu dund ci amalgam maanaam dëkk bi mënuñu accepter nit ñi taxaw di wax lu leen neex di def lu leen neex te dara du leen ci fekk loolu nag dafa war a dakk lan moo koy dakkal mooy activité yi nga xam ne ñu ngi koy def au niveau des communes maanaam wàcc waxtaan ak les populations waxtaan leen waxtaanu dëgg ba ñu xam ne lii mooy réalité bi kon loolu ñun suñu mission la en tant que jeune moo tax monsieur le ministre li la war yaa ngi koy def mooy accompagner ñu ndax saa yuy wàcc sur le terrain di nga bàyyi li ngay def en tant que ministre de la république ñëw toog sa doole fekkewu ko sa poste fekkewu ko sa temps fekkewu ko parce que président moo ñu ñor te moo gën ci réew mi keneen ku dul Macky Sall gënuloo ci réew mi sa ça la ma bëgg que tey lii occasion la pour la jeunesse de Biscuiterie ñu lancer suñu ay activités monsieur le maire ñu ngi lay talal loxo xam nañu sa diggante ak président Macky Sall gis nañ ndaw yi nga xam ne ànd nga ak ñoom dañ lay talal loxo talal loxo képp kuy ndaw ngay ànd ak monsieur le maire ñu organiser suñu commune xool ban liggéey la ñu a mën a liggéey boo xam ne moo adapté ak commune bi pour ñu mën a am ndam 2024. bu lii weesoo dinañ def une délégation ñun ko gère Biscuiterie yi ñëw seet si la waxtaan ak yow nga accompagner ñu ci li nga xam ne moom la ñu bëgg def au sein de la commune en tout cas maa ngi gërëm ñëpp di remercier ñëpp encore une fois surtout nos amis du département de Dakar parce que mobilisation bi rafet na seen taxawaay rafet na te ñëpp xam nañ ne président Macky Sall moo ñu tax a jóg maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen remercier ci invitation bi incha allahu jërë ngeen jëf merci beaucoup. boo gisee nag suñu waxtaanu keroog bi ñu amal ko. waxtaan ci l'essentiel la mooy d'abord lu tax ñu bëgg ñëpp juboo te nekk ci li nga xam ne mooy l'essentiel mooy jàppale président de la république ndaxte président de la république Macky Sall weesu na fu muy utalee boppam mandat wala leneen ak leneen fi mu toll kay mooy responsabilité bu nekk ci ndoddam mooy sàmm Sénégal ndaxte président Macky Sall tabax na Sénégal yokk na Sénégal waaye fi mu toll mooy aar Sénégal aar Sénégal mooy lan mooy bañ a seetaan Sénégal di daanu ci loxo ñoo xam ne ils sont irresponsables ñoo xamante ne respecté wuñu Sénégal ak histoire ñoo xamante ne amuñu ràññee ci ñun sénégalais yi ñooy ñan ak naka lañ ñuy yoree naka la ñuy téye loolu nag responsabilité boobu kuñ ko dénk mu ànd ak yow muy ñun ñii ànd ak président Macky dañu war a ràññee les enjeux du moment Moussa Sow wax nga ko sànq les enjeux du moment et les enjeux du futur responsabilité président Macky Sall weesu na ci liggéeyal Sénégal ak yokk ko préserver la stabilité du Sénégal préserver la paix au Sénégal c'est ça la responsabilité du président Macky Sall ñun nag ni ci àndeek moom mooy weesu suñuy intérêt bopp weesu di xool suñuy jëmmi bopp di xuloo di xeex di xëccoo li war mooy fépp fu sénégalais ne ni ko président Mohamed Djibril Wade nekkee ñu am woyof ak matu seeti la waxtaan ak yow sur les enjeux du moment et les enjeux du futur gis ngeen barki démb li xew place de l'obélisque manifestation boobu ngay dégg balaa maa dee ñu naan grande mobilisation à peu près 3000 manifestant kenn mayul sa moroom nga wax li nga war a wax démocratie interne amu fa képp koo xamante ne waxoo li nit ñi bëgg ñu saaga la dañu la may nga li nga wax ñoom ñoo ko waxal seen bopp nee nañ ñoom ci biir F24 wala yeewi askan wi am na ñoo xam ne ndegam ci opposition rek du ñu may nit ñi ñu wax li ñu xalaat ku wax ñu saaga la ñooñu boo leen joxee dooley réew fan la ñuy toll ak lan la ñuy def donc ñun sénégalais yi ñun ñoo war a am fulla te sénégalais yi seen fulla dañ koy dénk parti yi. ndaxte ñun ñooy ñëw di concourir au suffrage des sénégalais mais ñun tamit bu ñu amul matu juboo bu ñu amul matu waxtaanee farata bu ñu amul matu organiser wu waay waay sénégalais yi naka lañ ñuy wóoloo président Macky Sall tekkaaralam yaram ak tegginam lan moo tax c'est parce que dafa nekk nit koo xam ne dañ ko bind ngir mu mériter confiance sénégalais yi donc ñun bu ñu nekkee fii dans le département de Dakar comportement bi ñu war a mooy comportement wu yaatu. yaatal looloo tax ma ne leen keroog quelle que soit l'organisation képp ku jóg bëgg a liggéeyal président Macky Sall danañ la jàppale ànd ak yow ci lépp looy def te loolu nag mooy li ma tax a jóg ndaxte kat bés bu ñu seetaanee ba ñi nga xamante ne nanguwuñu pluralité des idées ceux qui n'acceptent pas la différence idéologique ceux qui n'acceptent pas la différence euh, des des opinions si on les laisse avec le Sénégal nous allons avoir une régression démocratique une régression de l'état de droit ndaxte ñi nga xam ne ils ne respecte pas nos institutions ils ne respecte pas notre société civile ils ne respecte pas la liberté d'expression parce que Sénégal nag lu nekk ngay dégg bu nit tooñee def loo xam ne infraction la ñu ne la état bi respecté wu liberté d'expression waaye ki nga xamante ne bu taxawee ci télé bi def njombe attenter à l'honorabilité des gens ñu ne déedéet état bi nangam ak nangam moo tax it j'en appelle à la responsabilité des médias internationaux bu yàggul j'ai vu un rapport de Reporters sans frontières qui classe le Sénégal derrière des pays que je ne veux pas citer mais des pays où ces mêmes médias internationaux sont exclus sont expulsés comment peut-on être classé derrière des pays qui expulsent des médias internationaux tous ces médias internationaux dans le cadre de leur association, qui font des rapports et qui mettent le Sénégal derrière les pays expulseurs, entre guillemets, de médias internationaux, se réfugient à Dakar. Ils viennent au Sénégal non pas seulement pour notre climat clément, mais c'est parce qu'il y a un climat de stabilité, de paix, d'ouverture et de respect de la liberté de presse. donc ñooñu tamit nañ respecte Sénégal ndaxte réew bu yaatu réew bu ubbeeku la c'est un pays d'ouverture c'est un pays de tolérance mais c'est un pays aussi où on doit respecter l'état de droit et le droit tout simplement may wax tamit ak société civile yenn saa yi ay mag yu bokk société civile ne ma tey dañu ñu sànni xeer mais dañu war a wax ak ñi nga xam ne ñi ngi def société civile ni mu waree nekk des arbitres sociaux politiques du jeu politique mooy ñi nga xamante ne ñi ngi jël seen rôle à cœur bañ a jeng fenn bañ a far fii bañ a far fële lu mat a wax ñu wax ko être sur la pente équilibrée ou sur le point équilibré du rôle de société civile mais nag am na ñoo xam ne ils pensent que faire partie de la société civile c'est toujours charger le gouvernement c'est toujours avoir des arguments contre le gouvernement et c'est la raison pour laquelle le rapport qui a été produit par Africa Jom Center j'ai dit la dernière fois dans les médias que son seul mérite c'est d'établir et de dire pour une première fois que le projet d'Ousmane Sonko et de son organisation sont un projet, son projet est un projet insurrectionnel. Pour la première fois, euh, le, le, rapport d'Aluntine et de Africa Jom Center utilise ces termes envers euh, Ousmane Sonko et son organisation. Donc je félicite Aluntine parce qu'on a l'impression qu'il revient à la raison, à la raison républicaine et à la raison démocratique. La société civile, c'est l'équilibre La société civile, c'est un, un, élément essentiel du jeu politique. La société civile doit être à équidistance et avoir une analyse fine, équilibrée des faits politiques. Donc, ma gërëm leen nga a nekk fii ci euh, biscuiterie di leen wax ne lii la président Macky Sall bëgg ci ndawam bu fekkee 2024 da ngeen bëgg li président Macky Sall def di continuer nii ngeen war a def di juboo di yëngu nekk ci biir communes yi di animer di monter seen ay comité bu ko defee nag ñu xam ne dëgg bi fii la ne ñun ñoo yërëm sénégalais yi président Macky Sall mooy liggéeyal sénégalais yi moo xam li république moo xam li ñu bokk te di ko sàmm donc loolu moo doon kàddu yi ma leen di gërëm leen sant di leen encouragé di leen encouragé ci booloo te doon benn xam ne quelque que soit quelque que soit organisation bi ñu bokk ñu doon benn àndandoo. te def li nga xam ne moom mooy njëriñu réew mi mooy jàppale président Macky Sall seeti sénégalais yi fi ñu nekk waxtaan ak ñoom jëflante ak ñoom te def loo xam ne day tax ñu wóolu li nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar donc maa ngi leen di gërëm leen sant di gërëm monsieur maire Mouhamed Djibril Wade misaal yi nga joxe sànq ci football dégg nañ ko équipe dañ koy tette di ko jàppale jeunes yi ñu leen di tette njuum te mën na am waaye chaque jour rek ñuy rappeler. ndaxte lu yàgg rek mooy andi njëriñ donc ñu leen ciy gërëm di leen sant bu baax a baax leen jërëm